le, le fichier. Mm-hmm d'accord accord euh, euh, mu ngi noonu tonton tonton tonton euh, sëñ Fallou tey bu ñu desee desee ci ci walum parrain parrainage bala ñuy bala ñuy sori euh dafa nek question bo xamante ni si man à chaque fois dama koy demander mais ba légui day melni euh amaguma si réponse claire euh gisoon fan yële ñen ci ci ci dissident yu benn ñu jël seen i ay ay ay parrain légui ñi nga xamante ne si ñoo jël mu nek les 5 délégués rouge ñom ñoom wax ne li ñu jot jël ci parrain yoy noonu dañ koy jébbal Amadou Ba mu nekkoon ay parrainage yu kële jëlee euh, yu euh, Boun Abdallah Dionne ñoom ñu jëloon ko ñu ñu bàyyi ci moom pare daal di yóbbaale li nga xamante ne si moo di ay parrainage waaye ñoom nee leen collecté woon dañ koy dañ koy jébal Amadou Ba ndax jàpp nga ni ay parrainage boo ko collecté loo benn candidat pare mën nga ko jël joxaat ko kaneen donc loolu damay jàpp ne ñu ko def mhm. ils sont vraiment malhonnêtes mhm. parce que tu peux pas être ngeen ànd collecté ay parrain pour mhm. le compte de ce candidat là après transhumé nga nga dem ne way da ngay da ngay jël jëf yi yóbbu ko si ñu transhumé. Mhm. parce que nit ñi parrainé wuñ la nit ñi il parraine un candidat. Mhm. donc mënuñu jël parrainé benn candidat après nga jël seen parrain yooyu dem jox ko keneen. Mhm. parce que ce qui ça va ce qui ça va se passer mooy lan. mooy euh, fiche yi ñu remplir. dañuy dem remplir ko ci yeneen fiche. c'est-à-dire bu dee euh, aujourd'hui la fiche de Amadou Ba si je me trompe pas c'est 117. donc dañuy jël jëlee dem recopier ko si fiche yu Amadou Ba te loolu vraiment détournement d' objectif la. vraiment. Mhm. loolu dama jàpp ne sax. Mhm. dama jàpp ne sax yoon. Mhm. da si war di àdd. parce que loolu tooñ ay nit la. beneen bi mooy ñi nga xam ne tam ñoo pare ne. jàpp naa ne. mën nañu rester en justice pour dire que kii dafa jël suñu suñu décision dem bu ko jox keneen. mooy suñu décision de pare un autre candidat ñu jël bu ko jox seen beneen candidat. donc loolu dafa nekk loo xam ne politiquement rafetul. beneen bi mooy du affaire gentleman pour ah politique euh, démocratie daf ci am solo te démocratie mooy nit ñi mhm. nga nangu leen seeni choix mhm. un acteur politique am na possibilité nekk fii ëllëg mu nekk feneen mhm. mais na pour ce cas de figure là munoo dem si nit na ko parrainer ma nit parrainer la nit nga pare nga transhumé wala nga dem sa beneen candidat nga jël yooyu Mhm. vraiment politiquement c'est pas bon c'est à et puis ni koy def mhm. euh, a quand même. la euh, def politique dañu a Sénégal dañ koy bind. Mhm. politique. Ah aujourd'hui li def pour plaire un candidat. politiquement tu as un coup. mais euh, na dina la

voilà. Euh, mais tamit est-ce que sax moom Amadou Ba bi mi ngi koy yët moom la dina dina am grandeur boobu wax leen ne leen. Mm-hmm. Euh, lii du lii samay parrain vu que ñoom jamono ji ci loolu la ne ku nekk di tibb sa tànk ay morom ku mën sa morom rek daal di koy wan. non tibb sa tànk morom politique mooy. Mm-hmm. un délégué régional. Mm-hmm. d'un autre candidat. nga convaincre ko mu bàyyi keneen ñëw si yow loolu. mun nañ ko jàppee tibb sa tibb tànk mais ce qui n'est pas normal. mooy kooku uh-huh. ñëw indaale ay parrain càmb. Uh-huh. parce que wax naa ko léegi. Uh-huh. nit ñi parrain nit ñi parrainé. Euh, parrainé wuñ ci ñëw dañoo parrainé un candidat. donc candidat boobu ñu pare parrainé moom kooku lañu bëgg xëy na seen parrain dem si moom. boo ko indee si Amadou Ba Amadou Ba bu amee fula da lay wax ne non lii. Euh, du man pour man pour keneen la. puisque da nga ñëw bon na dem xëy na mu wuti yeneen point mhm. maintenant nag c' vrai que mën na euh, déstabiliser l' autre camp mhm. mais mais du affaire gentleman simple mais malheureusement nous sommes dans un pays où mhm. koy waxee ah doon waar euh, tonton Sëñ Fallou euh, day mel ni